salaamaaleykum bro. waaw maa lay siyaar mon ami. naka yi tey. Eh, lépp jàmm. tout tout d'abord dañuy kontaan. waaw bu ñu gisee ngay percé dem ba Qatar. Eh. dafa en tant que sénégalais. tout d'abord sentiment boobu bi nga demee sant yàlla xamal ne xam ni yàlla na ko jox keneen mais ñun la ko jox donc li ñu njëkk def rek mooy ni alhamdulilah. sant yàlla sant ñaari waajur aussi sant sama yaay baax sama maam parce que ñëpp moom yenn saa yi am wërsëg moom kenn ko tere nit ki quoi tu yàlla iya, bind ah. uh-huh. nah, nah, nah, kan sa jëbi balaa ngaa tëdd wala balaa nga dem da nga am incha donc moo tax dañuy sant yàlla rek du ñun quoi yàlla la. la sa ci Afrima bi. ah la moo doonoon sa tànk tey ci Afrima bi. da maa ñëw nii rek. da nga da mu neex rek. nga ñëw nii rek doo mën a dem quoi. j'ai rien à faire ba pare. ok en fait daa spectacle bu ma doon def après ma jógee fii. sama benn commune boo ma nee ma ko ñëw jàppale ci benn affaire nañ nga initiative le fait au Sénégal. je pense que c'est que nous on n'a pas encore compris c'est quoi la musique tu vois ñun tey on n'a pas compris c'est quoi la musique ñun ñu ngi ci kii mooy sama woykat kii mooy boo xoolee seen nu mu doxee par rapport ak Sénégal ñun suñu musique Sénégal lay tey ñun Nigeria musique nu mu amee doole Côte d'Ivoire musique nu mu amee doole ñun suñu musique amee ko doole ñun tey boo fi limee Youssou Ndour Wally ñi nga xam ne soo ko ni internationalement fu ñu dem mën nañu ko feesal wala boo nee sax Youssou Ndour pour nga lim keneen day métti waaw donc je pense qu'on n'a pas encore compris c'est quoi la musique ñun sénégalais yi Sénégal bëri melomaan ay fans club la bëri moo tax affaire yi mel nii bu nekkoon yeneen dëkk yi day fees dell parce que ñoom yi vivent la musique tu vois par rapport ak ñun léegi nag loolu que ça soit muy état bi wala ministère de la culture ñoom ñoo war a encourager ndaw ñoom ñoo war a encourager ñi nga xam ne ils sont dans la musique ñu jàppale leen wute leen ay vitrines yi am te vitrine internationale donc pour affaire mën a dem yoon quoi tu vois d'accord merci beaucoup Yeah.